ak beneen autopont bi du am du am njëndakum njaay question la ñu njort loolu sañ dañu ko njort bu ñu seetee situation ni mu demee duñu ko dul nangu gis nga am réew mënoo jël suufu askan wa jëfandikoo alalu askan wa askan wa di ko jëfandikoo waat nga leen nga ciy dagg seen bopp fii ak mbuur tu payes trois mille cinq cent juróom-ñaari téeméer ngay fay oto bu ndaw boo ci defee trois mille cinq cent da ngay egg mbuur carburant mais li ngay lakk ci carburant moom ngay fay ci péage bi loolu dafa jaadu boole ci sans compter arnaque bi ci nekk mun na la arrivé nga changer oto fàtte jël sa carte rapido wala mu arrivé la recharger woo sa rapido wala nga recharger ko xëy na actiful parce que am na yenn application yoo xam ne day def cinq minutes balaa muy actif mhm. mais boo ñëwee yeneen oto nekk sa ginnaaw da ngay trois mille trois mille yoo xam ne amul benn ticket benn justification da nga ñëw ñu ubbil la nga joxe trois mille mhm. ay arnaque la ay naxaate ay njublang la yoo xam ni gars yi ñu ngi koy xeex mais ba léegi amul et puis li gën a graaw xam ni dañoo am ay kilifa yoo xam ni dañoo nekk ñun ci faale wuñu leen. Mm-hmm. lu leen neex def leen faale wuñu leen. mais yëg nañu jooyee askan bi. Mm-hmm. Euh, Paasan transporteurs yi ñoom tam ndax radu radicalu ñu ba mu ëpp bu ñu nee bu ñu leen woowee ci waxtaan ndax duñ ci dem. Euh, est-ce que xam nga lu tubaab di wax désabusé être désabusé. Mm-hmm. mooy dara soof la ba ba ba sa sa sa yëg-yëg sax doo maanaam li te mooy mooy indi sip mooy nit kook nga xam da lay wax a wax ba mujj gi bu la boo boo déggee lu mu roog sax ay riiram sax nga naan am li may dégg muy mu dee ñëw loolu la la mu doon baadu kooka sénégalais ñoo toll foo xam ne dañu bëgg lu ñuy tach nii lu baax ñu daj ci du loo xam ne Baye Assane dafay taxaw la wax wax wax non dañu wax nga ko gis nañu ko alhamdulilah bu subaa ñu dégluwaat la wax nga ko gis ñu ko bu subaa dootuñu la déglu sénégalais yi niveau boobu lañ toll li ñu daan baale yaa vingt années trente dix léegi bëgg amatuñ jot bi moom laay wax ne waa Yewwi Askan wii nga xam ni que am nañu ndem fenn fi nit ñi du leen may sax diw ak costume ba bees. Mhm. parce que amul parce que dañu sonn. Mhm. dañuy souffrir transporteurs yi daj safa ak marwa la ñuy daj te li Baye Sall wax ak Mansour moo la dëgg réew moo xam nguur moom nguur moom xam lu muy dox na sama ay kees di gafaka di fees rek. Mhm. may encaisser rek. demandez aux Sénégalais combien ils donnent à l'État du Sénégal au niveau du port de Dakar. aéroport bii ñu nga xam bu bees bi la sénégal yi di def ak fépp foo xalaat ñaata séné sénégalais ñooy dépensé par jour di fay façon taxe bu kenn xamut la mu doon les actuellement nguuru Sénégal xam la lay dundee nous payons de taxes coloniaux c'est-à-dire que ñun li ñuy dépensé nii ñu ñoo fayeeku yëpp mooy taxe ya nga xam ni sa sawaay tubaab dafa ka fee tegoon am nu mu doon doxalee parce que weguñu woon fonkuñu woon respecté wuñu woon nguur bi ñëw sanu ay jàngkat boroom xam-xam ya mag ñu génnee fu ne am xam-xam bu ne mais xam-xam bi gën a important moo leen të xam nga moo la ban mm-hmm. am yëg yëgëb yërmande mm-hmm. ne ah lii day metti ci nit ki xaaral ma nga xool ko ci sa bopp mais que tëlee xool sa bopp nag sab xam-xam des na. Mhm. Paasan ñu wax nag ci wàllu politique njiitu réew bi daal nay arrêté ni ki démb ci conseil des ministres bés bi ñu war a amal législative yi fanweeri fan ak benn bu weerub juillet moom la ñu jàpp plénipotentiaire bu pôle des non alignés ca dialogue politique bi moom jàpp na ni loole lu mën a am la jàpp na ni itam mën nañoo respecté délai yi ñeel li jiitu yooyu boobulee élection lu ci mel ni caution bi ñoon du ceeg moom mu di de ci fay yi nga xam ne kenn mënu koo wàññi boo jàppee fii ak le 31 juillet danañ ko mën a ministre de l' intérieur war na génne benn arrêté buy fixé caution bi juróomi weer balaa élection loolu day méngoo approximativement ak fii ak ba weeru février di dee waxaale fii su collecte parrainage yi lan lañ ci laaj acteur politique yi ngoot ci terrain bi pour tàmbali seen liggéey jamono yi nga xam ne nit ñi ñu ngi doon ŋàññi fichier bi auditeurs yi bi ñu ñëwee càmbar am na ay recommandation yoo xam ne def nañ ko diñ ko ci defee moom moo ñu may ñu am fichier boo xam ne may ñu dem ci élection locale yoo xam ne mën nañu jàpp ne yu mucc ayib la fichier boobu buñ ci demaatee élection législative jàpp nañ ne jafe-jafe du keneen daal na ci yàddu moom ab expert électoral la mu di Ndiaga silla moom mi lee dàpp na ni euh, disposition yi ñu tënk ci code électoral bi mën nañu ko respecté waaye nag insisté na ci yenn poñ yu ci mel ni euh, montant wu caution bi ak itam révision exceptionnelle bu liste électorale yi ñu déglu ko décision boobu nag méngoo na ak li nga xam ne moom la code électoral bi wax waaye nag bu ñu xoolee li des ci élections yi daanaka juróom benn weer loolu moo tax nag konk yi nga xam ni war nañ ko matal il faut ñu teel ci njëkk a urgent mooy maanaam ñu fixé bi a bokk ci élection yi moom ngay joxe te loi bi dafa wax ni maanaam cent cinquante jours bu desee juróomi weer lañ ko war a a jël beneen bi ci topp mooy révision de liste électorale maanaam ñu saytuwaat ubbiwaat mbindu mi xam ngeen ni révision de liste électorale bu ñu ko defee ba pare day maintenant production ak di séddale carte d'électeur yi am na nag aussi ponk bu am solo boo xam ne mu ngi jëm ci candidature yi dépôt de candidature yi mais xam ngeen ni tey dépôt candidature yi dafa am lu bees ci législative yi ndaxte dañ cee boole parrainage donc parti bu ci nekk ak euh, coalition wala anti indépendante bu ci nekk dañ laa wax léegi ci li nekk ci code électoral bi mooy danga war a wuti parrainage boo xam ni ci ay lim maanaam euh, zéro virgule cinq euh, wala ba zéro virgule huit pour cent wu fichier kon dafay jaadu ñu teel a permettre parti politique yi ak kuréel yooyu ñu mën a dem saytu ji wala laaji en donc askan wi pour ñu signal taxaw tuuti ci processus électoral bi ñeel législative yi ak yi nga xamante ne moom moo jiitu yooyu les élections on ci ak non ko bagayu ko. ruuma naat ci dàq élection législative yi tàmbali woon na jokk ginnaaw bi ñu organiser élection locale yi 23 janvier bi weesu waaye njiitu réew mi Macky Sall dakkal na coow li ndax ci conseil des ministre bi weesu ci la xamle ne day respecter calendrier républicain bi muy lu war a neex ku jéegi nga xam ne ginnaaw résultat yi ñu am ci élection locale yi jàpp nañu ne ñoo moomee vent ngir mën a imposer cohabitation ci législature bi ñu jëm ci noonu kon élection législative yi jàpp nañu ko dimanche fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2022 ci noonu candidature yi war nañ koo déposé juróom-ñaar fukki fan laata bi su wote bi mu mel ni kon war nañ koo déposé ci biir weeru avril 2022 lu mooy loolu am na app bu a jàppal candidat yi ngir uti ji ay parrainage muy app boo xam ne xayma nañ ko ci ñaar jàpp ñetti weer leneen loo xam ne war naa am ngir ñu dem ci élection législative yi mooy ubbiwaat mbindu mi ci liste électorale yi boole kook ay arrêté yoo xam ne ñooy àddu ci modèle de fiche yi jëwriñ bi ñu dénk l'intérieur war naa itam fixé caution bi ñaata lay doon téeméer ak juróom fukki fan laata bisu woote bi waaye laaj bi ñenn ñi di samp mooy ndax jaadu na ci organiser élection législative yi ci biir nawet bi. mu ngoog élection yoo xamante ne Mansour ñu bari jàppoon nañu xëy na dinañu ko dàkk ginnaaw bu njiitu réew bi ñàkkee coalition am ñàkk euh, grande ville yi waaye mu mel ni moom tëj na boobu débat. mooy li tax delluwaat ci calcul mathématique. nombre d'électeurs yi am Sénégal ñi bindu ci fichier bi ñen ñoo voté ban pourcentage la ñu am pour pourcentage boobu nu ñu koy répartir ci élection législative yi même bu fekkee ànd ñu dem coalition ñu téye ci seen loxo nombre votant yi am Sénégal ak nombre inscrits yi nekk ci Sénégal. Mhm. ba nga xamante ni bii parce que man yëf yi ni ñu ko yombalee dañu ko jàppandale nii nii nii. nii da nga jàpp mën na ci ci bu leer sax. Mhm. njoxti naa ne piège am na ci. ni ñu leen gagné ci ay ville ñu xaw ko minimiser Sénégal yépp xam nañu leen a bàcc bàccal fi nekk nii ci ay calcul la ñu nekk ñu ngi xool ñaata la Macky Sall amoon ñaata la ñaata la Idrissa Seck amoon ñaata la ma Madické Niang amoon ñaata la Cheikh Issa Sall amoon ñaata la Ousmane Sonko amoon ci calcul yooyu la ñu nekk. Mm-hmm. jéem ko dóor ci euh, local yi bu ñu ciy jógee jéem a xool mathématiquement ni ñuy calculer législative yi. Sénégal yi nañu yeewu mais parti yi dem ci législative yi nañu yeewu gis nga gis nga jalgati élection dafa war a jeex Sénégal. Mhm. jalgati élection xat yi dafa war a jeex Sénégal te foog naa ni Sénégal yi daañu jël seen ay responsabilité comme nee nañu fichier bi fiable na nag ci yenn benn benn parti politique yi ko fekkee woon mais man Diop euh, ni ñuy précipité législative yi. Mhm. baral jéego yi xaaruñu sax recours yi noppi ñu daal di koy annoncé man na sama xel en attendant. Mhm. nag néew ma dut baaraam parce que amu ci certitude. Mhm. mais dama ne tey na sama xel en attendant. Mhm. ma gis luy dëggal wala wala luy weddi sama njoxtu lu ñaaw. Mhm. Euh, ci njoxtu loolu lee sëñ Saliou bu faagaagal ñeen ñi di am ndax lu ñu mën a jaarale ci parrainage bi lay doon. mën na nekk parce que parrainage bi en fait c'est pour euh, un filtre démocratique.